sunu bës TV. daleen ak jàmm ni ki démb ba tey ñu ngi koy gis muy circuler ñu baree bari di ci yey yàbb yi moom Ousmane Sonko mile toog waxtaan ak kii di président Sall ndax loolu jàpp ngeen lu mën a nekk la. gannaaw ci ay xabaar yoo xamante ni jot nañ ko moom président Sall ba mu xam leen ni dafa bëgg amal lii nga xamante ni moom mooy dialogue te dialogue boobu leen nag xam ngeen ni Ousmane Sonko mënta ñàkk mu daal di si teew ndaxte kat la soxal jàmmi réew mi moom mi le loxoom daf cee laale bu baax a baax ndaxte ndaw ñi ñoo ko daal bëgg. lu ni mel nag pour mu am il faut que Ousmane Sonko daf ciy bokk dialogue googile ba tax na nag ñu ngay xam ne ci xabaar ni moom Idrissa Seck njiital parti réew mi. dafa demoon rek daal di seeti kii di Ousmane Sonko ngir dialogue boobu nag daal di am Ousmane Sonko dafa am ñetti condition yoo xamante ni moom la tekk ngir rek mën a took benn portable ak président Sall ngir ñu daal di waxtaanee intérêt réew mi bokk na ci condition yooyu lee ñu daal di bàyyi ñëpp ñi nga xamante ni dañ leen a jàpp te ñu fare ca moom te te wàllum politique daal di tax ñu daal di leen di jàpp waaye tamit ñaareel ba moom président Sall moo xam ni kët mënta bokk dale nag jàmm ni ki démb ba tey ñu ngi koy gis muy circuler ñu baree bari di ci yey yàbb yi moom Ousmane Sonko mile toog waxtaan ak kii di président Sall ndax loolu jàpp ngeen lu mën a nekk la gannaaw ci ay xabaar yoo xamante ni jot nañ ko moom président Sall ba mu xam xamle ni dafa bëgg amal lii nga xamante ni moom mooy dialogue te dialogue boobu leen nag xam ngeen nii Ousmane